waaw kon dañoo baax naa dara amuuti ku bëgg a woteel Abdoulaye Wade wala nga bëgg a woteel Ousmane Sonko bulletin bu zone bi ngay jël zone bi bulletin bu zone bi ngay jël boo bëggee woteel Ousmane Sonko wala Abdoulaye Wade Ousmane Sonko nag dana fi ñëw àjjuma dana ñëw fii siyaare si kon Mbacke mi kon ñu ko yëgalaale képp koo xam ne génn bu rëy génn bu rëy lañ bëgg a dal Macky Sall dañ koy yëkkati ba weer ñu toog ci kaw 31 juillet 2022 dama bëgg Macky Sall ñu mel ko assemblée nationale ndax góor jigéen ñi nga xam ne nii amul tool pour ñu yaakaar ci Afrique bu dul Sénégal góor jigéen Sénégal lañ yaakaar ci góor jigéen